بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من زب إلى غير ذاتي اللهم يا من زب إلى غير ذاتي كل ما لم ترضه لي يا من يقود لي بكن فيكون يا من ألان لي يا من لينت لي يا من قهرت لي كل عدو بلا لقاء اللهم يا من زب إلى غير ذاتي كل ما لم ترضه بي يا من يقود لي بكن فيكون يا من ألان لي يا من لينت لي يا من قهرت لي كل عدو بلا لقاء امين يا رب العالمين loolu waxi ku tedd ki la ci ci weer wi la ko bind zul qaada moo tax ma ubbee ko waxoon naa ni fii ba dimanche nga xam ni ci lañuy ngénte kuréel bu bees bi ci turam wi ñu kaase def ko cax noonu lañ ciy tegee kàll li ñuy tuddee kàll mu mel ni làngu jinne la walla làng bu raar ca kàll la ko wolof di wax mooy di juutal lettre yi di juutal baat yi ak di ko jaxase yooyu nag dama cee amusé wu ak xale yi nga xam ne de quatre à douze ans xale yooyu am ñeenti ak ñaar yooyu xale yi ñoom laa cee amusé wul kàll la tudd moccoo ta cax ma ci ci wacca xecce ni ci wacce xoccoon na caa di cëmb cë a càkk ba cer ca di cëmb cë ku ci rëccal bu ci bi cees bi ci nga ca xaccam na ci sa cant ci wi ci recekk ci laa ci joce ci da caxte ce tucur wi ci da ca macaa ko ca tecce mu ca coon ca cax tecce ma caa wa cax ni ci ke cépp ku cu cici tuccu wici tuccur wici da ca na caa la ca aca mecceel acam na cee xacal cici mu coota cax la ci ca ikinshakya akyarlakyah dikimakyas bucinyikya ekyeggekye kucukhakyam cucur wici dakyana kya lakya jocokh likima kya lakya waccakh wasalaam